c'est ça dañuy ñëw nag ci daj dëpp gi ndax am na ñaari combat yu ne si kanam foog ñu waxtaane ko doog a ñëw nag ci programme kii ci la ñuy ndar keppee mais Gris Bordeaux Balla Gaye coow li bëri na combat ba jàll ñu ne ñaani mbëri état yi indi baaxul euh, ñii ne jeexal nañu te man nanguwuma loolu <laughs> sama message daal xam naa ne jàll na ndax dama ne woon mobiliser stade bi fees la xaaruñ ko ci ñoom ndax luñ ndax luñ miin la ñoom ñaari mbëri dëgg la ñoom dongo mosa duy duy arène nationale euh, euh, kii stade Abdou Diouf fees del te foofa suma jumul soixante mille places la kon vingt deux mille places du leen jaaxal kon duy ko du problème problème bi mooy bu ñu xeexul bëreewuñu promoteur yi dañ leen bàyyi walbati ko ci mbër yu ndaw yi ndax gis nañ mbëri mag yi dañ naan duñ bëre dañuy calculer rek ah. mais dafa mel ni dégg nañ ñu ndax dañoo xeex dañoo bëri boo doon dellusiwaat seen combat kerook ñoom ñaar. combat boo xam ne lay seetaan boo xam ne bii combat bu jar jàngat la de combat la boo xam ne bii euh, man xaw naa leen la yërëm sax ci préparation yi xaw leen la yërëm ci biir bëri bi parce que li def mbër mu ndaw sax pour mu def ko actuel. Mhm. lu jafe la waaw. parce que round observation ngeen def ko. daje xeex xeex benn benn kenn ku ne kaw sa morom ci biir bëre bi ngeen continuer di bëre loolu ba amul doole mënuloo ko wax naa ko feneen fu du fi ah dëgg ma leen ñoom ñaar li ñu bëree ci coup bi nga xam ne bi moom la Balla Gaye jël ku bu jaar yoon la Balla Gaye jël coup bi Gris Bordeaux jël ku bu jaar yoon mais attention amoon na ñaari uppercut yi ma doon gis Balla gay di ko tante muy saaru saaru ron bi mhm. loolu loolu loolu bu bu jàlloon combat bi mbër mu doon mu doon doon mu daanu bi mais nag xalaatoon sax ci biir combat bi. wallaay dëgg la xalaatoon naa dina uh-huh. waaye da nga gis ne ñoom ñaar. bi ñu bëree ba euh, ñamante taxawaat lu yàgg ra def benn round of sar uh-huh. laa ne combat bi. bokk ci combat yuy niil. maa ngi koy wax ci benn panel boo xam ne bii euh, bokk nga ca muy. làmb li ci biir di nuyu bu baax ñoom Kanji production ñoom Massou Diop. bu baax a mm-hmm. baax mm-hmm. di nuyu ñëpp gars yi. mën a xamale ne combat bi mënoon naa bay jàll mën naa jeexe ci ay avertissement mais bii. Mm-hmm. ragal naa ci bëri la jeex ne foog jëlaam parce que ñoom ñaar man jàppoon ne bu ñu jàppante rek ci biir bëre bi bu ñu jàppante rek jëlaam xeex bi sax mënoon na nekk xeex mu dóor mu daanu. mais bëri bi laa calculé woon na àlla kula teg da nga gis ne bala gay dafa mujj jëli bëri ba ci biir ndax gis na ne position bi ñu taxawee ñoom ñaar xam nga jokkalante kenn ku ne parce que mbër bu fekkee ne da nga yàlla dogal na nga liggéey sa tànk ba sa tànk am doole sa loos am doole pour mbër ñu dóor la nga daanu aussitôt rapidement rek day jafe il faut gars yi calculer loolu moo tax gis nga Gris Bordeaux doo nga Gris taxawal na kawam ba mu baax ba nga xam ne coup yi muy am na impact Balla Gaye taxaw na assisam ba nga xam ne pour nga dóor ko mu mi ngi rëppeelu jógaat yu da ko yomb mais daanu facile daanu complètement pour mu def ko day parce que Balla Gaye dafa entraîné ci combat bi comme loo xam ne li euh, jàpp naa ne ñoom bu ñu entraîné doon endurance boobu ñu bëree maximum benn ak xeex bu ñu xeex. ak pelouse suuf fi ñuy bëree ni mu diisee. ni mu bëree suuf attention bu du loolu ku ko ci def te amoo doole da mën ngaa toq sax ci say tànka mën ngaa toq ci say tànk ñu daan la. est-ce que du coowal nit ñi moo waral seen état bi ñu sumee ko ñuy wax nangam nangam et puis nag ah man de bu ñu da teel na nag. ay xale yoo xam ne ñoom commencé guñ sax. <laughs> non jeexal na. ah ku ah, na ci am na ñu ne ah, dañoo am luxe. am am am ay jaraaf xale bu ko ci mais ah. waaw wax boobu dañ ko waaw caam. waaw xam nga combat boobu je pense toog nañ fi. Hmm. bi ci bi ñu ci laajee ma ne leen. waaw. ba léegi mu amoon conseil ma koy jox. combat bu mu amati bu mu gën Sénégal. dëgg la na ko liggéey ci suuf si de A à Z. Hmm. yaakaar toog nañ fi ma wax ko. Hmm. Euh, mu mel ni aussi loolu lu mu def la mhm. du waxum kan suñu conseiller moom la def mais xëy na am na ñu ko jege mhm. bokk ak man gis-gis ñu wax ko loolu mhm. mu resté Sénégal préparé fi combat bi leer ba mu ko defee aussi gis nga résultat bi ci am te gëm naa bi naa jàpp bu doon bu doon dama dafa dem extérieur gëwuma ni dina demee nii parce que tam dafa am loo xam ne gis nga lamb ji toujours nekkul ko da ngay génn dem extérieur pour yaw mun a daan ah mën nga fi lim mbër yoo xam ne fii la ñuy préparé ku mel ni boo jëlee Ama Baldé par exemple boo jëlee Lac de Guiers mais ci bëri fii la ñu fu ne te gis gis nga performance bi ñu am donc c'est pas affaire bi nekkul extérieur te yaakaar naa lii prouvé na ko donc liggéey na fii ci suuf a ànd a waa école am am na ci résultat voilà maintenant nag li ci dëkk combat bi ñaari étape nag des fois bu bu yàgg bu yàggee bu waaw ah, waaw ah. man gisoo ma man jàpp gisoo ma noonu daan du jug nga koy daan loolu moom maa maa ko wax fii. Mhm. Balla Gaye. ci mhm. conse ngay daane Balla Gaye ci comme la di combat bi na duré. Mhm. du loolu nga ciy daan. Balla Gaye ci combat bu gaaw nga koy daane maanaam li muy def gaa def gaa loolu nga koy def pour daan ko ci. ci diir diir kat. la woon. gis nga première étape bi Gris Bordeaux ko moom. la mais fa mu na lu feeñ foofu. foofu moom. soit coup bi mu jël di bala encaissé ba pare coup bi mu jël. moom da koo wàññi ba amatul force pour égaler ko làmb ji. mais am dara. Mhm. gis nga ba étape ba mu jàllee mhm. laa leen ne Gris pare na ci combat bi mhm. Balla Gaye da koy daan Balla du bër mu ñuy daan ci ci naatire combat à longo longo déedéet dañ koy fekk si ci li nga xam ne non c'est ça xeex da ngay mel doo ko daan doo ko daan non Gris sax ñeme na ko mais problème mooy comme li baaxum wax léegi xam nga dañu def balancement de bras daw daje te Gris daf mën xeex rapproché da koo jege dóor ko bu dal Balla trébuché Gris sëkkatal ko mu giri Gris sëkkataat sëkkalaat sëkkatalaat ko mu replier ba jub saako yi riposté. taxaw ba ba riposté nag la dóor Gris dóor moom it Gris ku ah, mu dal looloo freiné aleeru Gris ñu taxaw defar placement de bra jege saako yi arbitre bi woo leen foofa baaxum lan mooy gagné combat ba. bii kenn ku ne génn nga sa morom saako yi. Mhm. ku ne ci bi nga jëlee ko. génn nga saako yi parce que mm-hmm. giri bi bu muy génn saako bi mm-hmm. bu muy doxaat di dellusiwaat mm-hmm. dafa teg tànkam ya saako yi ba xaw a saala waale nga xam ne ba léegi kon kawo baa nga ci yaram wa comprendre ba léegi nga xam ne kon coup bi ba léegi reesagul aussitôt bu ñu dellusiwaatee giri dafa taxaw léegi léegi mu ngay def round observateur bi mais li nga ci wax moo ci nekk dafa mm-hmm. taxaw lu yàgg. waaw déglu Balla Gaye da ko taxaw ba mu dellu si. bi bi bi Balla Gaye bi mu dellu si Balla bi mu déglu Balla da ko teel a da daa da ko jëkk a ñëw ci biir combat bi. Mm-hmm. maanaam dafa dafa récupéré waat li ci ko combat bi lan la mooy kii léegi il faut ma yegg ko fu sore daan ko. Mm-hmm. ci biir bëre il faut ma wan ko xam-xam ne maanaam dàq bëre il faut ma wan ko xam-xam ne xam ëpp loo ma doole loolu yëpp da ko cee loolu lay def ci bopp bi. ngir moom mu ngi xaar parce que giri boo xool mi bi rek ma seen dafa am benn remise bu muy def boo xam ne bii parce que pied droit lay taxawee. donc remise bu muy def da ciy gaaw ba pare ni mu koy joxee daa dafay am jaar yoon. ba pare épaule yi Gris Bordeaux mu ëpp doole épaule yu Balla Gaye ci li ma gis ci làmb ji. coup Gris Bordeaux ëpp impact. coup Balla Gaye la par coup Balla Gaye bi Balla Gaye jël. moo ëpp doole fuuf Balla Gaye coup mu dóor Gris Bordeaux boo doon peese woon poids yi tey techniquement nga génni poids yi ñu teg ko ñu xool long en distance pois bi mu demee force bi mu demee boo ko beesee bu Gris Bordeaux moo ëpp doole nga gis Balla gay loolu tax Balla gay génn moom parce que foofu jël na ko bu normal bu jaar yoon mais Gris bi mu jëlee coup Balla gay da doon bañ Balla gay dellu su beneen coup bu normal parce que Balla ngay ko luppalo ay mu ngi luppee coup Balla Gaye yoo xam ne yi benn bu ko ci dal ci épercule yooyu mënoo sànni benn ko ci dal làmbam jeex loolu tax mën na ñëw jël si yoor ñëw jël si mais bu njëkk giri da doon lëm te lalli la fobbanti la comme ni mu def Tyson 2 comme ni mu def Lac de Guiers numéro un fobbanti la sax ni la lalli la boo seet sax Eumeu Sène dafa téec ñaar tànk yi fël ñaar loxom mu daan ko ci ginnaaw saako ko ko sànni ko fële loolu tax ba fi mu nekk nii loolu mënoon na ko bu njëkk mais xëy na mënatu ko daanaa def préparation bu ñu leen mu def benn show defaat beneen show ah mais defatu ko xëy na nag ñu ngi jëm moo tax xam yu bari bari xam na ñu ngi jëm mag ah, waaw waaw làmb ju neex waaw fii boo ñëwee ci bëre bi waaw c'est que bëri comme mm-hmm. la moom mm-hmm. boo ratee première song mm-hmm. boo ratee deuxième bi foofu moom pour nga daan bala gi dina jafe dootu yomb non non gëwuma ndax ko daan te Gris dafa amoon opportunité boo xam ne bi foofu Gris moom parce que comme ni ko père waxee maanaam euh, coup bi bala jël moo gën a am impact fuuf bi mu mu dóor te foofu giri la mu doon man nee na carrément lan lan moo tax giri demul <laughs> non c'est-à-dire loolu loolu saa sut àll yu nii loolu ku xamul làmb sax di nga xam ne kii coup bi Balla jël foofu am kawoo na kaw boo xam ne dafa an Balla dafa entraîné mm. combat bi parce que mu jël mu entraîné woon dégg dootu mën a taxaw mm-hmm. mais lan la mu tax giri taxaw di ko seetaan mm. te giri aussi bi mu demee am na benn remise bu mu jot dafa mel ne boobu aussi dafa dafa mel ne xaw na lu mu wàññi ci moom wóore na ah, ah bala mi ci xeexkat la parce que moom ci la nag ah. taxaw parce que mu jëlee kuy la xam ne ah kii kat man xeexkat la mais kat kii day xeex kiw bi mu jël loolu la ko loolu ko woon mm-hmm. dama jëm ne loolu nag moo andi taxawaay bi nag mm-hmm. waaw te te foofu raaw boobu aussi coono feeñ na ci mm-hmm. waaw foofu moom feeñ coono feeñ na ci dëgg la waaw ci ñaar yëpp coono feeñ na ci mais daal gis naa nag giri euh, première étape bi waroon na ci jeexal combat bi. Mhm. mais ba mu ko ratee moom la jeexal loolu boobu la lay perte ci léegi ak li fi jaar lépp donte préparation mystique bi jàll na Balla Gaye gis nga lañ ko dagg ay deux millions cinq cent et quelque Gris Bordeaux presque moom it noonu kazaalika ba tax na ba émission bi ñu mujj def seen dernière face to face li ñuy réclamer CNG mooy xaalis bi ñu dagg c'est trop yow en tant que manager. man ménager laa léeg-léeg ñu dal mbër léeg-léeg ëmb ay mbër yu mag mais loolu ban jàngat nga ci am baaxul. xalaat bi mooy gis nga gis nga gis nga kilifa. Mhm. li wolof Njaay da wax ne euh, garab yi war mët pénc cib dëkk law ba du ko gis ba di ko gor mhm. gis nga mbay ci sababu tànk mhm. bi nga xale yi bari na coow yi amoon ci làmb ci jamonoy Alioune Sarr jamonoy Alioune Sarr ñoom Ibrahima Sarr ba ci staff bi fi jóge beneen ñëw ci diggante dagg mbër yi ak du ñu dagg mbër yi loolu dafa am foo xam ne fii xale yi bu ñu fa toll la ñuy dagg seen mbër ci combat mbër boo xam ne dafa bëri deux cent millions deux cent mille ak cent millions wala cent quatre vingt millions wala cent yi quelques millions ak mbër mi nga xam ne trois cent mille lañ ko fay ñu dagg ci mbërëm di ay xale yu ndaw ñu mën ko muñ toog jooytu ko ngeen di seeni mag da ngay jóg ca ba jóg jotee mais boo négee ba ñuy laal la yow. mag mi nga ñëw taxaw. ah donc xale yi bu ñu amee xalaat. dañuy def tekk gis nga dagg. mbër ñun am na loo xam ne lii ñun ménager yi. ñun ci ñun la war a doon. te la preuve ci kàttanu yàlla ñoo ngi jëm cee ay événement yoo xam ne yii ñoo gi jëm ci lu mel ni Euh, management yi président beeg. li ñuy def ba defaraat bureau bi bu assemblée générale bu ñu ci jógee soobe yàlla ci kàttan bu ñu fa jógee. Mhm. war nañu am yeneen yoon yeneen ndoxalin yeneen i bagages yu ñu war a doxale mhm. suñu diggante ak CNC suñu diggante ak promoteur yi suñu diggante ak yi. Mhm. bu ci mbër yi ak ñëpp koo xam ne kii. mën naa ne euh, bokk nga ci làmb. mbër metti na nañu xool yërmande yi mbër yi préparation metti na. ku yi Balla Gaye jël ak Bombardier bi lay gars yi dañu xam nga xam euh, ñoom sanction financière bi la ñuy kaas en tant que promoteur euh, nan nga ko gisee waaw ah, na balaa ñu fi wax mooy euh, concernant dagg mbër yi waaw aussi waaw waaw mhm. voilà ndax quoi sanction financière xam nga comme wax CNG ay ay règlement la teg mhm. mais tam loo gis tam règlement tam doon règlement rek lépp lay donc nañ nañ ko nañ ko tëj déedéet règlement dafay am ouverture maanaam boo demee ba tey teg ay règlement yoo xam ne lii kat ñu ci bëri ñu ngi ciy kaas mu nar a am nu ay yëngu-yëngu yu am ci ci ci ci biir ci biir mbir mi ci ngeen ngeen bokk fa yéen gis naa ne euh, waxtaan war na cee am dëgg la maanaam ñu wootante yéen ñi tey nga xam ne tey yéen a icône lamb yi ak yooyu ak waa CNG ak kii rek ñëpp pren mbir yi ñu toog waxtaan ci loolu ñu xool ñu defe ko noo xam ne kat nii kenn dootu ci gaañu dëgg la je pense loolu mooy loolu mooy solution bi loolu mooy dëgg. xam xam nga man euh, li ma d'accordul ak CNG. Hmm. donte euh, euh, mbër yu mag yi kuy kaasal man man mbër yëpp lay kaasal. mbër mu ndaw mu ñu dagg ba président Alioune Sarr keroog di ci wàcce kaamel bi ne naa ko mos naa yóbbante woo la jotuma la ndax neexoo jot téléphone ma woo Ibrahima Sarr ne ko mbër mbëri ndaw yi niñ leen di daggee métti na nga ne ma yar leen xale yi mu xool ma ree fàttali naa ko àjjuma. Hmm. kon man yëpp laay kaasal. Hmm. mais mbër yu mag yi liñ leen dagg métti na mais li tax léeg-léeg mbër yu ndaw yi duñ ci euh, tenir compte. buñ daggee mbër yu ndaw yi kenn du leen dégg ñoom ñu wax. <laughs> te nañ kaasal ñëpp. parce que règlement bi bañ ko waxee suñu réunion bi mujj Gris Bordeaux mag fa woon parce que dañu mag dix butéel ngay indi su ëppee benn butéel ñu dagg la dix pour cent léegi dix pour cent boo fa amee reliquat dix million un million day daal di dëgg la léegi temps de préparation ba tey soo ëppalee dix minute de préparation. minute ñu dagg la pour cent xaw xanaa deux millions ñëw na. ci lu ah. ñàkk fayda ëppal benn biteel. dix minutes nga ëppal dix maanaam ñoom CNG dañ leen di ci ay textes ñu di ko nangu te booba lañ ko waroon a bañ. léegi nag bu dee mbër bu ndaw bi cent mille nga fa am ñu dagale ko vingt mille nga ne vingt mille garaawul mais boo fa amee relique dix millions mais deux millions lay doon. Ah ah pourcentage bi. dégg nga la la leen CNG di surxale te ñoom duñ ci rendre compte. mais bu daggee mbër mu ndaw vingt mille Balla Gaye giri na ko garaawal may ko cent mille na ko garaawal mu ñël mbër mu nangam nangam léegi Balla Gaye am fa deux millions dégg ngi seen cri de cœur bi ñu def barki démb ñoom ñëpp wax sanction bi nañ ci teel jóg balaa beneen balaa beneen saison bale di ñëw mais loolu mooy problème bi